di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bu tedd bu sell bi nga xam ne ñu ngi ko doon waajal boobu bu ne liggéey bi nag mooy lan mooy siyaar si nga xamante ni at mu ne dañoo baaxoo di ko def ci ki nga xam ne mooy sunu yaakaar teeg ëllëg di Serigne Touba Cheikh Moul Mountakha ñu koy ñaanal mbake mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene liggéey lislaam mu def ci lu kawe ak njortam àggale ko lépp amee ko nam ko bëggee nu ànd kook moom ba nu daje ceeg tawféexi bi waaye ñu ngi ñaanal bu baax sëriñ am Amdi Xadim moonu menn mi nga xamante ni moo toog a jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine moom it sunu boroom yàggal ko fi lool te ma ànd ak wér ba li mu yéene ci jot ndigal ak jëfe ndigal mu def ci lu kawe ak njortam ñu ànd kook moom ban daje ceeg ngërëmul sëriñ bi. bu ngeen déggee sunu kàddu nag kàddu yi ñu ngi koy yëkkati ci ndigalu mbooloo mi nga xamante ni ñooy mbooloo Miftaahu Saada. te ki nga xamante ni moo nekk ci bopp bi di jëwriñ ji ñu koy woowee Cheikh Mouhamadul Amin Faati mi nga xam ne da jàmbaar ju mag yoo xamante ni dafa ànd ak ñun liggéey bi diñ ci gunge te jéggi jamono lool ñu koy ñaanal sunu borom kàttanal ko ba fi mu bëgg a yàggale mbooloo mi mu yàggale ko fu kawee ak njortam jëmm ju tedd ji ma taxawal muy Serigne Ndongo Bey di ki nga xam ne moom lañ toftal ci jëwriñ ji ñu ŋànk daayira bi daayira bi nag. ni mu ràbboo mooy ñi nga xam ne jëwri yi nga xam ne ñoom lañ toftal ci ñoom ak tuut tànk yi nga xam ne moom ngeen gis noonu ci biir barab bi ñuy xaar ku tedd gi Cheikh Mamadou Muntaxa ak soxna yooyu nga xam ne gis nga leen sànq mooy ñu sol tenue yi bleu yi di ay soxna yu jàmbaare nekk ci mbooloo mii ñuy wax Miftaahu Saada ñun ñëpp ñu ànd liggéey bi di ko doxal suñu képp lay kàttan kon su ngeen gisee nag ñu dikk fii tey nag du dara lu mooy rek jaayante bi nga xam ne jaayante nañ koo Serigne Touba jox ko sunu bopp ba mu jeex takk yaakaar ko àdduna ak alaaxira di ko liggéeyal fële ca ndakaaru tuubaaru route de yëmbal liggéey boo xamante ni ñu def sunu kémt lay kàttan ñuy def nag at mu ne bu demee ba uh, waxtu ba ak seeti rek nu takk liggéey boobu indi ko ci ki nga xamante ni mooy sunu yaakaar teeg ëllëg ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak kon duñ def lu mooy rek bàyyi ki nga xamante ni mooy Serigne Ndongo Bey mi nga xam ne moom lañ toftal ci jëwriñ Mouhamadou Amine Fati mu yëkkati ñaari kàddu rek su ko defee ñu wéyal li des si liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lépp ñu ngi santaat sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér euh, di leen seereel ne euh, wax dëgg yàlla mbooloom Miftaahu Saada tey ñoo indi woon seen liggéey di ko jëbbal ku tedd ki euh, noonu rek la ñuy def depuis sëñ Saliou ba léegi loolu mooy suñu ànd wax dëgg yàlla sëñ Saliou ba léegi ku fi toog rek indi lañ liggéey. ni lañ andé ñun wa Miftaahu sada ci njital Mouhamadou Lamine Fati ñu koy ñaanal suñu borom yeen bi woyof lool ci barke Serigne bi serigne muntaha nak wax deug yalla ñun amuñu payam di koy ñaanal mu gudd fan te wër yalla bayal ñu ko ba ci kanam ci barke Serigne bi. fi nga xamantene moy daru minan fekk fi Serigne Touba serigne muntaha mbacke fas yéene ko jébal suñu liggéey ñoo ngi ñaan suñu borom yagal ko fi lool dolli ko wér sam ko ar ko way yeenam ci liggéeyal islam liggéeyal ko cheikh Khadim suñu borom def ko ci tawfiixu serigne bi ba mu am ci ba mu def ci lu kaw njortam ta ñaan ko mom noonu nii lañ koy eh, ñaanalee serigne Amdi sëñ Fall momit suñu borom yagal ko fi lool yéeneem ci liggéeyal mam Cheikh ibrahim Fall suñu borom def ko ci tawfiix ba mu def ci lu kaw njortam ta ñaan ko mom ah, di sante bu baax nak suñu borom subhanahu wa taala bim ñu maye daw ñu teewee jébal liggéey bi ren tamit mu mayat ñu nu teewee fa seen i wat ni liggéey bi kon loolu ak cant la. Eh, cant gi nag eh, ginnaaw suñu borom ñu ngi dolli di sant Serigne Touba mi nga xamante ne tey lu ñu am mooma eh, lu ñu am mooma di sant bu baaxit it mboolem njaboot gi yëpp ndax miftaawu saada buñ delloo ci taarix Serigne Saliou sama borom dolli ay leeram jébbal na ko liggéeyam ay yoon. Eh, sëñ sëñ Baara Mbacke Falilou mbooloo Miftahou saada jébbal na ko liggéeyam ay yoon sëriñ Sidi Mokhtar daayira Miftahou saada jëbal na ko ay liggéeyam ay yoon kon ba tey jii loolu di woy ba ci sëñ mu sëñ Muntaxa Mbacke mi ñu ngi ñaan suñ borom yàggal ko fi lool ñu yàgg ko fe fekk yàgg ko jébbal liggéey bi ci barke Cheikhul Khadim eh, kon liggéey bi nii la tëddee daayira bi nag eh, buñ koy wax. ñi ngi ba soso fele ci buun waye ndigal li serigne touba Cheikh salihou mbake moo ñu ko joxoon ci di daire miftahu sada ah, buñ ci agge ci daayira bi nak liggey ba fay am ah, liggeyu alquran la te lolit ñoo mun cee ni mëna a suñu biir bu baax te buñ ko buñ ko tuddé ci baatu nasaraan muy social social googu nak ah, daayira bi ngi ci gorgol ci wet gu ne bi nak ci suñuy ay baay lañ ko doonoo ak suñu ay wayjur ci ñoom lañ ko doonoo muy dox ba tey nga xamante ne ay doom judd na ci ay sëtit judd na ci waaye loolu yëpp nekk ci liggéey bi kon boog lii ñu ngi ñaan suñu borom saxal ñu ci ndax it laataa ñoo jug am nañ digal suñu kilifa yëpp yi nga xamante ne ñoo féete sow buñ ci limee a Cheikh Mamad Fadal mbakke docteur xam mooy kilifa mbooloo mi mënees na ci liim sëriñ xaadim Ndiaye Kayar di kilifa ak mbooloo mi waaye si na ci liim sëriñ Baara Jenn nekk ak ñun fële ci tund yëmbal di kilifa ci mbooloo mi kon ñoom ñëpp seen yéene ak seenu ndigal tàbbi na ci liggéey bi kon boog ñu ngi ñaan suñu borom may ñu ñu fekk koy ati at ci barke Cheikhul Khadim te lépp luñ ci euh, jëf euh, sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne ku mu nangu sa jëf dana ko laqal fu yàq àggut mu mu nangul ñu jëf ci ci barke Cheikh Mamad Fadal Mbacke jërë ngeen jëf lu li nga xam ne moom mooy liggéey bi ah, mu mel ni nag euh, fi nga xam ni fa la sëñ naa duggee ah, li nga xam ne moom mooy daayira wu Saada ginnaaw bi leen joxe tur wu sell woowu ba ñu dellu fële ci sow dafa liggéey liggéey bi nag nii lañ ko tënkee maanaam dañuy def bu ñu toogee ab diir maanaam am at ñu yeesal li nga xam ne moom mooy liggéey boobu ñu ko tuddee assemblée général su ko defee ci lañuy nas ay kuréel ginnaaw bi nga xamee ni formé nañu bureau bi nga xam ni ci njiital jëwriñ Mouhamadou Lamine Faati muy jëwriñu mbooloo mu ci wàllu góor yàlla ci wàllu soxna yi di soxna aji jong moom it mu jiite soxna yi ci biir loolu it ñu toftal ci ay kuréel yoo xam ni ñooy ŋànk liggéey bi di ko doxal ngir liggéey bi fiñ ci bëgg a àgg ñu mën ko fa àggale wàll mel ni wàllu bureau li wax am na secrétariat maanaam ca secrétariat bi Euh, ña fa nekk mooy Alioune dara fay ak euh, daaw Serigne da Jong ñuy yor lépp loo xam ne ci wàllu mbind la ak ci wàllu wax ak ci wàllu lépp loo xam ne bi euh, taarixu daayira bi ñu war ko tënk ba nga xam ni képp ko xam ne boo toogee lu yàggit boo ñëwee li nga xam ne fii la daayira bi tàmbalee fii la yem ah moom it li nga xam ni moom la ñuy wax organisation kuréel goo xam ne fépp foo xam ne fii daayira bi dafay dem ñoom ñooy taxawu liggéey bi ba daayira bi mën a nekk ci anam yu baax rawatina bis bi nga xam ne moom lañu fi ñëw tey waa organisation ñoo taxawu liggéey bi dalal gan ñi am na ci kuréel gu nekk Touba am na gu nekk ca Ndakaaru jiital sëñ Abdou Karim Sow sëñ Omar Sow sëñ Bada Jong fii ci Touba ak ñoom sëñ Abdou Karim ak ñëpp mu am li nga xam ne moom la ñuy wax culte mooy lépp loo xam ne ci wàllu culturel la mooy njàngum alxuraan mi xasida yi kuréel gi loolu sëñ Bassirou Diongue jiite ko di ci def liggéey bu am solo ah, ci wàllu waxtaan wi sëñ Daouda ñing di ko teewee saa yu ñu dajee loolu mu doon liggéey boo xam ne bi Miftahou Saada mi ngi koy liggéey di defit alxames bu nekk ñu daje def guddi àjjuma eh, dundal sunna si eh, jàng fa li nga xam ne moom mooy alxuraan eh, jàng fa ay xasida waxtaan fa tegaat nit ñi ci yoon wi bu ko defee li nga xam ne mooy programme bi daayira bi jàllale ko daal di demaat ba li nga xam ne moom mooy alxames ci biir liggéey bi it euh, yaatu na genn yaatu goo xam ne yi soxna yi seen wàll am nañu taxawaay boo xam ne dañ koy taxaw di ci liggéey ngir it ngir bañ góor ñi bàyyi leen gannaaw jëm ci wàllu njàngak ak wàllu organiser seen biir rek loolu yëpp dañ koy taxaw loolu yëpp dafa doon loo xam ne lii lu temps Sada ci ni mu organiser woon noonu la ko taxawee ngir bëgg rek fépp foo xam ne fii liggéey bi war na faa àgg ñu am tànk yoo xam ne dina ko fa àggale loolu moo waral ñu def boobu li nga xam ne moom mooy organisation boobu kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne wax dëgg ñu ngi koy liggéey fële di ci sàkku rek ngërëmul sëriñ bi loolu dong lañ ci sàkku ah di ñaan suñu borom mu yàggal taxawaay bi wéral cër yi ah ba lépp lu ñu yéenee liggéeyal sëriñ Touba yàlla defal ci lu kaw suñu njot xëy na interview bee xaw a gàtt moo tax mënuñoo wax lépp ba dugg ci liggéey bi dëgg-dëgg ak xataay xataay beeg yooyu moo tax dañuy tënk noonu rek mais am na yeneen yoo xam ni daayira baa ngi ci yëngu dama ne wàllu social euh, wàllu relation demlante ak dikkalante yooyu yëpp dañ ciy yëngu maanaam mu doon loo xam ne daal maanaam daayira yaatu gi mu yaatu Miftahou Sada mi ngi ciy jéem a xar tànku tubéyam bu ngir lu ci ne rek mu am nu mu ca doxe ba daayira bi mën a ëmb ñëpp mën a uuf ñëpp ngir liggéey bi mën a matale ba àgg fépp ba Europe am nañu ay mbokki taalibe yoo xam ne fañ faa nekk te bokk ci daayira bi saa su ne dañuy jokkoo ñoom ba liggéey bii ñu def si nii seen ñax ñëw na ci ah, seeni kàddu ñëw na ci kon nag ñu ngi rafet lu liggéey bi bu baax a baax ñaanal jëwriñ ñi nga xam moo jiite liggéey bi suñu borom doole ko kàttanal ko ba nga xam ni fi mu bëgg a yóbbu mbooloo mi suñu borom kàttanal ko ba mu yóbbu ko fa muy jëriñ Mamadou Lamine Faati ak jëriñ Soxna Aji Jong ak ñëpp ñi nga xam ne bootu nañ ci ginnaawam di ay jëwriñ ginnaaw loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ci kàddu ak ci xol kon tey rek dañuy andi ay bunt yoo xam ne euh, dañ koy jooyal ci taarixu Miftahou Sahada Miftahou Sahada nag buñ koy wax taarix la boo xam ne Euh, bu yàgg la ndax mi ngi jaaree ci jëwriñ ji nga xam ne nii mooy sëriñ Mbay Fall nekkoon jëwriñ ji nga xam ne moo nekkoon Miftahou Saada waaye suñu borom dogal mu jiitu di ñaan yàlla it yàlla dolli leeram bi fi jóge it ki nga xam ne it mooy sëñ Omar Ndiaye euh, yoroon daayira bi du ko doxal euh, ba ay at yu baree bari bi mu demee it ba yàlla dogal it ki naan sëñ ndongo beey moom yoroon daayira bi nga xam ne it mooy Miftaahu Saada muy daayira bu yàgg yor ko ay at yu bëree bëri waaye bu ñu demee ba dajale ay mbooloo ci lañ tànnee benn jëwrin duñ naan lay mbay mu jiite daayira bi nga xam ne mooy Miftaahu Saada ak daara ji waaye biñ demee ba jëmmi jamono ci lañ tànnee suñu jëwrin ci nga xam ne tey moo fi nekk tey ñu naan sëñ Mouhamadou Lamine Fati ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam te woyofal yan bi mu yor daayira bi yor boo xam ne yor bu dal la yor bu rafet la waaye yor la boo xam ne it bu ànd ak teggin waaye suñu ñëwee ci wàllu soxna yi ki nga xam ne it moo fi nekkoon ci wàllu soxna yi jiite woon ko ñu naan ko soxna Faama Saw suñ borom dogal mu jiitu yal na ko yàlla dolli leer àndoog kook suñu yaaju baax ja di soxna Ndey Ñang yal na ko yàlla teeru àndoon kook soxna Faat Badiane ak mag ñi nga xam ne it ñoo nekkoon magi daayira bi nga xam ne mooy Miftaahu Saada kon Miftaahu Saada buñ koy wax taarix la bu yàgg waaye àndoot koo kuñ naan Baye Lassou fay Baye Ndiame Jong ak ki nga xam ne mooy sëñ Jeere Faati mag ñooñu def lu rëy ci Miftaahu Saada biñ fi jógee it ci jamono jooju ci la daayira bi wéyee ba nga xam ne ñi leen wuutu ci wàllu liggéey bi euh, taxawu ci kuréel gi ki doon jàng léegi mooy Aline Badara Jong jamono jii ñuy wax ak ñoom ñi ngi farewoo Touba ak ki nga xam ne mooy sëñ Xaadim Diouf ak Xaadim Ndiaye ak ki nga xam ne it mooy Modou Bousso ñoom ñoo teeru euh, waa Ndakaaru yi nga xam ne ñoo ñëwoon fii pour siyaare tey suñu yaakaar tey ak ëllëg di sëñ Muntaxa kon mel na ne tey waa Dakar dañoo ñëw fii fekk si waat benn daayira boo xam ne mi ngi ci biir Miftahou Sahada kon loolu it taarix la boo xam ne euh, bu am solo la waaye Miftahou Sahada it ci ay jamono ñu ngi tuddoon soppee Serigne Fallou waaye bi ñu demee ba jaar ci jamonoy sëñ Saliou ba ci alaaji baara ci lañ ko tuddee daayira bii di Miftaahu Saada di ay ngëneel yoo xam ne yu yàgg la kon daayira la boo xam ne ni yemul ci daayira rek waaye am réew la ndax tey comme ni ko jëwriñ waxee léegi rek soo demee ba bitim réew ñu ci bari jëf nañ ay jëf yu rëy ci wàllu siyaar bi te ñoom ñëpp it ñu ngi bokk ci Miftaahu Saada kon Miftaahu Saada it ba léegi liñ leen fi bàyyiloon moom la ñuy wëyal ndax seen aada bokkoon na ci social di dimbalante di jàppalante waaye même temps saada seen aada bokk na ci saa yu dajee li ñuy def mooy dinañ jàng alxuraan waaye dinañ jàng li nga xam ne mooy xasida yi sëñ Tuubaa bind dinañ def li nga xam ne it mooy feeñal téere xam-xam yi ba suñ ci waxtaanee rek ñoom ñëpp seen xol day sedd buñ ci tuddee ki nga xam ne mooy sëñ naa Jara wala ki nga xam ne it mooy sëñ Daawda Euh, ñu ciy def taxawaay boo xam ne bu rafet la ci Miftaahu Saada ci ñëwee ci wàllu mbind mi ku ci mel ni sëñ Daawda Jong ak sëñ Aline Badara mi doon wax lépp lépp luy këyit ci daayira bi ñu war koo doxal kon ñoom ñoo koy saytu guddi ak bëccëg buñ ko càmbaree ba ne liggéey bi nii lay taxawee kon ñoom it ñu ngi ciy def jëf joo xam ne jëf ci ju am solo la ci Miftaahu Saada kon Miftaahu Saada daal buñ koy wax daayira la boo xam ne nii ay ngëneel la waaye daayira la boo xam ne ñu jàmbaar lañ ñu bëgg sëñ Touba lañ ñu fonkante lañ ki nga xam ne it moo yor wàllu kaamel gi di sëñ Basirou wuute ci ki nga xam ne mooy Moustapha jaw mi nekk euh, bitim réew ci wàllu alxuraan ji kon ñoom ñu ci jëf-jëf ci am solo ci Miftahou Sahada jamono jii ñu toll ne tout tànk yi nga xam ne tey li lay wan ne daayira bi lu yàgg la lu màgg la ndax ñii ñuy wax nii ci jataay bi ñu ci ëpp seeni doom ñoom ñooy jàng kuréel léegi ci Miftahoul Sahada te suñu jàngee rek sa xol sedd waaye doo yëg lenn lul sëñ Tuubaa kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla dolli jàmm dolli tawfiix asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. liggéeyal rek jéego boo jéggi rek kër la ca digg àjjana kon loolu liggéeyal Sëñ Ahmadu Bamba. dara gënu koo féete kaw boo gisee mu naan rafaani iqdaamu xayra mursalin rafaan bihi wa fuxta kulla mursalin liggéey gi may liggéey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci la sunu borom yëkkatee ba ma kawe mboolem ku mos a yónni ku yàlla mos a yónni loolu ñun dañu duggaale ci biir te liggéey sañ tubaa dañ ko lu ñu war a ñime la lu ñu war a ñime la waaye lu ñu war a di saxal la itam ndax koo xamante ne nii boo séqee jéego di ko liggéeyal dox bi ngay dox sunu borom dala ci defal yiwi àdduna ak yiwi àllaaxira ba pare faj say aajo kon loolu lu am solo la boo demee ci benn xasida buñ naan raaya sëñ Tuubaa nee na zur man tuhibbu wa in sattat bi kat daaru wa xaala min duunihi sawrun wa hawsaaru nee na liggéeyal Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa moom mooy moom mooy moom mooy wax mu ne sab sëriñ ki nga xam ne moom nga sukk jébbul wala nga yaakaar ko nee na dox bi ngay dox di dem ca moom nee na donte ci ay xur ngay jaar wala ci ay montagne daf koy jar ndax léegi sunu boroom di sippil ci ay bakkaar di la ci yëkkati say daraja loolu kenn xamul nu toll nee na laa yem naa annaka indal muhibba liman waaw sawaaru nee na ki nga bëgg yoon la jaadu na sa digganteek moom nga mën a so nga sonn ci moom ngir sonn gi mu sonn ci yow ndax koo xamante ne nii comme sëñ Muntaxa fii ne fii mu bu génnee rek mu jàkkaarloog moom mboolem la amoon si bàkkaar àdduna ak alaaxira suñu borom dinañu ko fanqal kon loolu jaral jar na ñu dox Dakaaru ba fii kon bu yàlla bu dogee bu dogalee si Amadou Bamba Xaadim Rasul jox ñu xéewal xéewal sëñ Tuubaa yaatu bañ jël ab bis bu mag 70 places ñëw dugg ci mu jaar ci APS bi ñëw amuñ ci benn coono kon loolu sëñ Touba defal nañu lépp kon ñu defuñu dara tàmbalee guñu defuñu dara sëñ Touba def na lépp sëñ Touba moo def lépp kon nañ gën a góorgóorluwaat baax a baax a baax ci liggéey sëñ Touba bi sëñ Touba ba mu nekkee Mauritanie dañu indal la tiina ilaa sar saara xat xasadu ziyaarati faaraxu daare ni aw saara bi nga ko laajee sëñ Abdoul Ahad Mbacke dañu loolu du sar saara rek fépp foo xam ne sëñ Touba nekk na fa wala ku ko nekkal ci béréb boo doxee sab tànk ñëw jëm jublu foofu nee na dañ ci amee payu mag ñi nga xam ne jóge woon nañ fii dem sar saara di ko siyaare kon lépp benn rek la sëñ Tuubaa tey li euh, sëñ ma dongo ndongo dërëm ba mu liggéey ba mu liggéeyoonu at ñëw fekk junni maam Cheikh Fall ba ñoo yem rek daraja kon nañ gën a góorgóorluwaat baax a baax baax ci liggéey sëñ Tuubaa bi fas ci lépp lu ñu bëgg rek lu ñu bëgg dinañ ko am lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci liggéey bi Cheikh Ahmadou Bamba bi rek buñ ci jéemee rek dinañ ko mën muy liggéey boo xam ne murid bu ne war na ko muy ci toolu Cheikhul Khadim bii indi sa ñax ngir jébal ko ko loolu nag dafay mandarga boo xam ne ci yoonu murid mooy naka mag ji daan defee rek jël seen i ñaq ak seen i alal jébbal ko Serigne Touba ànd ci ak pas-pas ak yéene kon loolu euh, mooy doxin bi nga xam ne moom la daayira bi tey euh, doxe ko muy nag mu toll ci ay at yoo xam ne maanaam ay foo ko natt rek weesu na ko euh, seen pas mag ci yoon bi nag kenn du ko natable ndax ñun ñi nga xam ne ñoo yor kàddu gi di ko wax nii mel na ci daayira bi lépp lañ ko tàggatoo muy bi Miftahou Sahara gi ba suñ borom dogal ñu ñibbisi fii ci tubaa ànd ko sama jëwriñ yi ku si mel ne ñoom suñu Aline Badara euh, bëri na ci ay mbokki taalibe yoo xam ne tey ci daayira boobu lañ tàggatoo ba ñëw fii ci Touba dëkk bu sell bi kon mel na ne daayira bi liñ koy waxee barina ci ay bànqaas yoo xam ne euh, kenn ku ci nekk rek yaa nga fa ba bitim réew ak fépp foo mën a toll ci àdduna bi tey ci daayira bi ci nga bàyyi ko kon loolu dañ ciy santaat bu baax a baax a baax santaat sëriñ bi te xam ne loolu yëpp jagle sëriñ bi la kon euh, ñu ngi ci santaat sëriñ Tuubaa bu baax di ñaanal tamit jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo tee liggéey bi mu egsi fii nii loolu nag ak cant bu bëri la ndax dañuy wax ne njiit moom su doxee tawana yoon mi rek ña ne ca ginnaaw dañ ciy sawar lool kon loolu euh, njiit yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ku ci mel ne jëwriñ sëñ Mahamadou Lamine Fati ba ci ñoom sëñ ndongo ñi nga xam ne ñoom ñoo dale woon mbooloo mi ci lu yàgg euh, liggéey bi sëñ Mouhamadou Lamine ñëw jiitewaat ko kon loolu dañ ciy santaat bu baax baax sëriñ bi di ñaan ziar bi nga xam ne ñu koy ziar sëriñ bi yàlla nañ ko amee ni ko sëriñ bi bëggee euh, ci barke Cheikhul Khadim mu doon mbégte ak li nga xam ne mooy tawféex joo xam ne dana yokk doon yokkute ci mbooloo mi te loolu am nañ ci yaakaar bu baax am na ci yaqin ndax fii ki ñu fekk si muy Cheikh mun Mountakha mii koo gis ci ak meloom ci jikkoom nga xam ne képp ku janoog moom rek sa aajo dana faju ci zaahir ak ci baatin ci fii ak fa ñu jëm nag ndax léegi rek la jokk ci jëwriñ yi lenn ci jëwriñ mi ngi ñuy leeral ba du ñu xamal ne sëriñ bi kat bari waa na si ñoo xam ne taxaw sax bu leen ko def dafay ànd ak mbégte ak ree te loolu feex ju yaatu la kon boog ñu ngi koy ñaanal baax euh, mu yàgg fi lu te ànd ak wér ndax bu fi yàggee rek maanaam dara doon mbégte ak aaju faju ci yoonu murit kon dañ koy ñaanal bu baax mu yàgg loolu ànd di ñaana waa daayira bi yàlla doon ak yokkute ziar bi bu buñ fi jógee lim bi nga xam ne moom la fi bi indi bu déwénee yàlla na ko fulandi ci barke Cheikhul Khadim te mboolem ñi ko teewee ñëpp bu kenn manqué ci barke Cheikhul Khadim. di nuyu suñu jëwriñ yëpp tàmbalee ko ci jëwriñ Mouhamadou lamin Faati hmm? ak suñu jëwriñ jigéen yëpp di xam ne daal bi muy biñ jëwriñ seexu naa. ñun kontan nak ñu lay ñaanal yow itam gudd fan ak wér gi yaram ndax ñi ngi koy yëg bu baax ndax miftah Sahada caabi way taxani serigne sëriñ mbake borom njàppandalu njur bam xàbbaan ak ndokan mo ñu tudd tur wi indil nañ ko kees gi indil nañ ko serigne Sidi makhtar indil nañ ko Alaaji bara indil nañ ko sëñ Muntaxa Albasit ñaar yoon ta bàllaay sa yalla ñu dund ak mom cent ans ans dund mamare sa yaram bi tey nag moom da indi bi dañ fi ñu cee gën a neex ndax dañoo dañoo indi pencum sëñ Basiiru tey ñu ngi daaru minnam bi nga xamante ne bi fii la gaal gi di déparé kon nag Miftahou Sahada caabi way taxe ñi yàlla nañ gën a yàgg ñoom ñëpp kulim juum te kulim doo matal ndax daanoo dajul suuf suñu jëwriñu góor yëpp suñ borom teel leen bi ngeen gunge ñu hmm? ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp ñu ànd yàgg ànd ak yéen liggéeyal Seexul Xaddim man de bég naa lool te ku fi teew di soxna bég nga te ñaan gi moom yal na dal sax ña nga xamante ni bii ñoo leen fi teewal njëkk leen a dal doog a ñëw ci ñun jëwriñ seexu naa gën a la yàgg gën a yokk gën a wér jëwriñ Mouhamadou Lamine Faty moom itam suñu borom teel ko teeñ bi ak suñ jëwriñ yu jigéen yépp macha allah di daaneel kàddu yi di wax ni wakun amaam mi wakun xal bi wakun وفي يميني سيماني جار كوني بارك برم توبا ربي بما يسراه الأزان قد فجاع بجاه أبدليه من لله قد لجاء ربي بما يسراه الأزان قد فجاع بجاه أفضل من لله خل جاء حمدي للراب كيري من لا شريك له وسريا يوما رمسات أن ملاعا محمد صلى الله الله في أباد عليه في حزبه كل به كلاعا أدعو إلى إلهي أما الموائبه لجملة الخلق يختار من براء ناجي ومن وكرمني تكريم خاد وكل لمن بلا سيارة ci daayira ci تور daayira مفتاح Saada di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàgg la fi lol te may la le wér sam la ar la yok say ngeerum ci serigne touba mbacke ñing la koy ñaan baax di ñaan bu baax mbacke sag yàgg fi ñu koy ñaan bu baax mbak ko ñaan bu baax suñu borom yagal la fi dolli la wér sam la ar la mbak sa yene ci liggéeyal islam liggéeyal cheikhul khadim suñu borom defal la ci tawféex nga def ci lu jaaxal aduna yëpp barke cheikhul khadim mbak say ngeerum ci serigne Touba ñi ngi ñaan suñu borom yokk ko bu baaxa baaxa baax a mo mboolem waa dañ ci def seenum ñepp ñi nekk fi Dakar nekk Touba ñi nekk bitim rew kon nañ xam ne fàttewuñu kenn ñëpp fasaad fasaade nañ leen bu baax ci liggéey bi tey ñuy wax ni Mbàkke ñi ngi ñaan nga may ñu fekk ko ay at yu bari te ñu yàggugoo ñëw yàgg la fee fekk yàgg la koo jébbal nga yàgguñu ko nangul ci barke Cheikhul Khadim Mbàkke ñu ngi ciy fasaale nag mbooleem suñu ay kilifa suñu ay kilifa di suñu ay woyjur du suñu ay sëriñ ñu ngi leen ci fasaale baax ñu ngi ci fasaale baax mboolem soxna yi ñu ci nekk lu way ñaan rek mo xam aaju gu mëna doon mo xam nga bëgg borom kër mo xam aaju gu lu mëna sox dab rek ñi ngi ñaan mu doon ci yow fajuk aajo amin amin amin Amin. amin balay sa Mbàkke yàgg fi lool tànd gër ay ram nu ñëpp a ngi naan amiin ya mbooloo maa ngi nii di dem euh, gis nañ sëriñ bi euh, daayre bu mag bii di Miftahou Sahada nag mel na ni ñoo njëkk siyaare suñu yaakaar teeg ëllëg di sëñ Muntaxa muy daayre bi nga xam ne nii ñoo njëkk a jébbali seen addiya jóge ba Ndakaaru ànd koog waa bitim réew xam naa ne képp koo xam ne yaa ngi bitim réew rek jàppal ne sa addiya yegsi na sa liggéey yegsi na waaye mbooloo mii nga xam ne tey Miftahou Sahada def nañ lu rafet def nañ lu rey loo xam ne nii tey yéene ji ñu am ci taalibe yi am ko ci jullit yi yàlla nañ ci yàlla defal ndam di ñaanal bu baax suñu jëwriñ sëñ lamin faati mu yàgg ñoo jiite te yàgg ñoo taxawu ndax jëwriñ ju mat jëwriñ la ndax mbooloo mii li muy bari bari tey daayira bii di Miftahou Sahada ñoom lañ njëkk a seppi ci kanamu sëñ Mountakha kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen jox ab dig ba déwén incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.